فاك أرسال الأنبياء إنك الماء أنبياء فاك أرسال الأنبياء بار سر وسناء سمس رصد واهتداء إنك الماء أنبياء فاك أرسال الأنبياء جنة القلب امتداحي لملاسي وثرائي الأنبياء فقرزا الأنبياء دائما فيك ودادي وذكاري وفنائي ما قلبي طال ودي وسفيري وبكائي أنبياء فقر للأنبياء وحنيني واحتراقي في صباحي ومسائي إنك الماء أنبياء فقر الانبياء زارني طيف قيال من حبيبي عينه حل في القلب مكانا مستحيلا لسوائي أنبياء فقد الأنبياء تل من دون مقامي وحياتي من دمائي الأنبياء فقال الأنبياء ينقضي هم سوائي فهو همي سوائي أنبياء فقال أهل الأنبياء كان فقما ومهيبا ومليحا ساذفا لا ترى سوى المقفى فهو سينون قبل رأي الأنبياء الأنبياء مدحه أناس وراحي قربتي باء ورائي الأنبياء الأنبياء نعمه عبد تسامى فله سر لوائي أنبياء الأنبياء صفوة الحق حبيب الله كنذي وغنائي عاثلي فيه أراه في جنوني أو شقائي أنبياء للأنبياء فاستغالي باشتياقي في فوزي واعتلائي ضامني من لا مشيقا هم من حائي وبائي أنبياء فقال الأنبياء قد تصلى بعد سيبين أهل حلمين ونهائي الأنبياء فترزا الأنبياء رشدا والله إني طول دهري في عمائي الأنبياء فترزا الأنبياء سوف أثنى وقرامي في المفدى أسوبكاي توكاني وهيامي بهجتي وبهائي أنبياء فقد الأنبياء سقل الحب عسير كأمه عند الملاء قلة من سيما لا منا فصل منها بالجماء أنبياء فخرز للأنبياء سل أهل الحب أحلى من وصال وعلاء أنبياء الأنبياء سهل القلب جهورا نحو خير الأنبياء هدوتي ثم رواحي في حبيبي وصلائي الأنبياء فقرزا الأنبياء شغلتي طول حياتي في صباحي ومسائي الأنبياء الأنبياء وصلاة وسلام نحو طاس الإباء وعلى آل وصحبين ومحبين انتمائي أنبياء فقرزان الأنبياء مدة الملك دواما لا ترابا تنتهي إن كم الأنبياء فاك أرسال الأنبياء أنبيائي فقد الأنبياء اللهم صل على سيدنا محمد فاتي لما أغلق والقاتم لما سبقنا صراط والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى ومقدار العظيم ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalina sayidi alawalina walaxirina muhammad ibni abdillah wa radiallahu an maulana abil abbas sayidi ahmad attijani wa radiallahu an waarisi sirrihi wa saaxibi faydatihi aluzma maulana cheikh alislam haaj ibrahim alhaaj abdoulahi Niass mbokki jullit yi ñuy seetaan ak ñiy déglu ci euh, pays cheikhul islam ci réewu Sénégal ci diaspora bi ci àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ñëw tey tey nag di ànd ak yéen ci xew-xew boo xam ne xew-xew bu màgg la xew-xew boo xam ne mooy màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi di ko tàntal tànt bu mag euh, ci ndigalu ki nga xam ne kii mooy mawlaana al xalifa xalifatu saaxibil fayda sayidi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mi nga xam ne moo jox ndigal euh, ki nga xam ne mooy representant am ca Dakar euh, di sayidi Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim ñas nga xam ne moo ko ca Dakar ne ko li nga xam ne mooy lañ daan taxawal ca Dakar muy gàmmu jëppal ñu tuddee ko gàmmu jëppal te mu nekkoon ci ndigalu Maulana Cheikhul Islam Hadj Ibrahim ñi nga xam ne ñoo koy taxawee di ko organiser muy jamiyatu ansaaru diin bi nga xam ne Cheikh Mouhamed Mounhamina Ibrahim Niass mooy ki nga xam ne moo jiite euh, li nga xam ne mooy bureau national bi Seydi Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass jiite li nga xam ne mooy bu international bi ñooñu. ak euh, ñi nga xam ne ñooy mbooloo mbooloo yi nga xam ne yi ñoo nekk ca dakaar ci région wu dakaar di mbooloo yi ansaaru diin ñooñu ñoo jot ndigal loolu beesalaat ko ci xalifa bi ak ci ki nga xam ne moo nekk di représentant am ca dakaar ci njiital ki nga xam ne itam mooy jiite ansaaru diin di Cheikh Mouhamadul Munhamina euh, Ibrahim ñas pour ñu war a taxawal gàmm googu nga xam ne cheikh Ibrahim moo ko santaane woon muy màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru avril ñaar fukki fan ba ndax ci la sang bu rëy boobu sang bu màgg boobu juddu woon ren nag situation am muy situation boo xam ne Covid 19 ñëpp xam nañ ko di eh, eh, coronavirus bi nga xam ne moo lëmbe àdduna bi te da ngeen dégg ñaani kilifa yi pour yàlla yëkkati ko fi nu mu gën a gaawee loolu nag bi mu amee autorités yi jël li nga xam ne mooy seen responsabilité. sëriñ si dellu ci téere yi seet li leen lislaam may ñu dëppoo ak ñoom kenn dootu génn kenn ku nekk toog néegam ñu ne nag kon waa ansaaru diin mi nga xam ne ñoom lañ jox responsabilité ci taxawal gàmmu googu surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ca région bu Dakar ñu jël ndigal jël dogal ne léegi gàmmu gi mënuñ koo ñàkk a def waaye dañ koy def online te mooy ñu jaaree ci réseaux sociaux yi ci rajo yi ak ci télé yi gàmmul yonent bi sallallahu alayhi wa comme na nga xamee ne noonu la ko bàyyi santaane la woon mu dem ci àdduna bi yëpp euh, ñëpp janook moom ñëpp gis ko lu gàmm googu nag programme bi nga xam ne moom la ñu tëral te mu ak suñu loxo jógee ko ci ki nga xam ne kii mooy secrétaire général di docteur Ousmane Thiam euh, programme bi euh, nii lay tëddee ñoom dañu wax ne bu ñu fi ñuy commencé seen programme mooy ñu ngi koy commencé 20 euh, avril lay doon euh, programme bi mooy 16 h bu jotee ba 17h dañuy teg ay sikkar sikkar yooyu nga xam ne mooy tudd yàlla loolu nag ki nga xam ne moom lañ wax ne moo koy commencé mooy euh, sikkarkat bu mag ba di ki nga xam ne kii mooy Baba Ndiaye alaaji Baba Ndiaye sikkarkat Zakiru moomu moom mooy ki nga xam ne moo war a def li nga xam ne lii mooy ubbi Euh, li nga xam ne mooy gàmmo gi ak sikkar sikkar soosu euh, soo pare moom itam danañ dégg ki nga xam ne kii mooy Babacar Thiam di sikkarkat buñ xam ba euh, ak ki nga xam ne itam mooy Ibrahima Ndaw di sikkarkat buñ xam bi ñooñu ñëpp danañ dem bu 17h30 jotee ba di h 40 dañuy def ouverture li nga xam ne mooy jàng alquran jàng alquran boobu nga xam ne moom la ñu ubbee jotaay yi cheikhul islam waxtu wu nekk danañ ko def suñ demee ba dix sept quarante foofu nag bu ñu fa jógee ba di sept heures cinquante loolu alquran lay doon buñ paree foofu allocation am na muy kàddu goo xam ne kàddu bien bienvenu lay doon pour dalal mboolem ñi nga xam ne ñii ñooy gan ñi rawatina nag ñi nga xam ne ñooy seetaan te ñoo ñu àdduna bi yëpp la gannaaw bu ñu jógee ko fii ci Sénégal euh, loolu nag ki nga xam ne mooy euh, Ali ibn Abi Talib Lopes mooy ki nga xam ne moo koy taxawee mooy jàng kàddu googu 17 h ba 18h loolu kër lay doon Ibrahima Ndaw mooy ki nga xam ne moo koy euh, euh, moo koy yëkkati suñ demee ba ci 18h euh, ba 19h nag la ñuy dajee ak professeur bu mag di oustaz Babacar Niang adjoint porte-parole u xalifatu cheikhul islam Hadj Ibrahim Niass mu def li nga xam ne lii. mooy euh, euh, euh, kàddu gu matale ci li nga xam ne mooy phase à la crise de Covid 19 bi nga xam ne moom lañ ñëpp di jànkuwanteet ban jàngat la ci jullit war a jëlee loolu mooy doon li nga xam ne lii mooy waxtaanam suñ demee 19 heures ba 19 heures 40 danañ dégluwaat si kër ci ki nga xam ne kii mooy si kërkat boobu di oustaz Ibrahima Ndaw Euh, dem ak Babacar Thiam muy jàngkat bu mag ba euh, demaat ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Ndaw ba 19 heures 40 bu jotee nag ba 20 heures 15 ñu am nag beneen kàddu kàddu googu nag mooy euh, li nga xam ne mooy kàddu président jamiyatu ansaaru diin di cheikh Mouhamad Mounhamina Ibrahim Niass mi nga xam ne mooy président national bu jamiyatu ansaaru diin moom mi ngi jàng kàddoom moo jóge ko dix neuf heures euh, quarante cinq euh, ba vingt heures quinze foofu fi la kàddu président Ansaarud-Din national Cheikh Mouhamed Lamine Hamina di ñëwee suñ jógee ko ci loolu euh, vingt heures quinze ba vingt quarante cinq loolu danañ demaat si kër Ibrahima Ndaw vingt heures quarante ba vingt et quinze ah ñu ànd nag ak ki nga xam ne mooy porte parole bu Medina Baye. di responsable moral bi nga xam ne itam mooy fond euh, bu Medina baay di Cheikh Mahi Aliou Cissé mu dem ak ñun ci lislaam ak solidarité lislaam ak dimbalante loolu mu ngi ciy demal vingt quarante cinq ba vingt et une heures quinze Cheikh Mouhamadoul Mahi Aliou Cissé suñu jógee ko foofu euh, vingt et quinze ba vingt deux heures quinze ñu daje nag ak ki nga xam ne mooy firikat bu mag bi euh, al mufassir wal mudirul am directeur général u institut islamique alhaji Abdoulaye Niass ak de ki nga xam ne itam moo toog ci seesu kursi euh, firi alquran fii ci Medina baay di ki nga xam ne mooy fadilatu cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass mu demal ñu moom itam ci waxtaan wu rëy rëy rëy muy prévention Euh, ak li nga xam ne kii mooy euh, euh, sortie de crise maanaam fagaru ak nu ñuy def ba génn ci crise jafe-jafe yi nga xam ne ci lañ nekkee loolu nag ñu di koy teg ci njàngaleem Cheikh Ibrahim Niass prévention et sortie de crise les enseignements de Cheikhul Islam El Hadj Ibrahim Niass loolu moo war a nekk lii Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass war a waxtaanee. waxtaan woowu su paree euh, vingt deux heures quinze ba vingt trois heures ñu dem nag ak ki nga xam ne mooy borom gàmmo gi borom siira bi Cheikh Mouhamadul Makki Ibrahim ñas mu ñëwal ñu siira yonantu bi sallallahu alayhi comme ni nga xamee ne noonu la ko baaxoo di ko defee ci àdduna bi lépp di ko defee fii ci pays bi te nekk di ko defee itam ci gàmmu gi nga xam ne mooy gàmmu jëppal gu Dakar suñ jógee ko ci loolu ci cheikh Mouhamadul Makki Ibrahim Niass mu gàmmu gàmmoom ba pare di vingt trois heures quinze ba vingt trois heures vingt danañ am sikkar boo xam ne euh, euh, euh, danañ am sikkar sikkar soosu nag boobay dafay jiitu ki nga xam ne kii mooy représentant wu xalifa bi ci Dakar di Seydi Mawlaay Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass kooku nag moom mooy ki nga xam ne mooy jàng xatmul Qur'an. kaamil ya ñu wàccee ci gàmmug yonentu bi sallallahu alayhi wa muy gàmmu jëppal mooy ki nga xam ne moo koy jàng euh, su jàngee li nga xam ne lii mooy xatmul quran boobu ba pare dana jàngu kàddu gi nga xam ne mooy kàddu représentant wu xalifa bi ci dakaar te mooy doon kàddu xalifa bi su boobaa loolu mooy li nga xam ne mooy tëj gàmmu gi kon nag gàmmu jëppal euh, euh, édition bi nga xam ne bii mooy bu 2020 loolu mooy doon programme bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla euh, dimbale ñu ñun ñëpp liñ fi dégg tey jii euh, ñu ànd ci ak dégg ak topp wa ma zalika alallaahi bi azizin kon li ñuy def rek mooy fi mu nekk nii dañ leen di euh, présenter ki nga xam ne mooy coordinateur u gàmmo gi di ki nga xam ne kii mooy Alioune Abi Talib ñu gën ko xam ci Lopes moom mooy ki nga xam ne ku mooy jël kàddu daal di wax ak ñi nga xam ne ñii ñooy seetaan ak wax itam ci turu ñi organiser gàmmu gi ak ñi leen composé ak ni nga xamee ne noonu lañ ko war a defee ci turu ki nga xam ne mooy jamiyatu ansaaru diin bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mounhamina jiite ci niveau national Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass jiite ko ci niveau international lépp nag ci ndigalu xalifa bi naa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass. aoudu billahi mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahiim. inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xaniifan walam yaku minal mushrikiin. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن رب ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله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 فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً صدق الله العظيم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله من كل ذنب إن الله كان غفورا رحيما ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent yàlla Muhammad gannaaw buñ tuubee comme ni ko suñ kilifa yi santaane ñu ngi tatagal mbooleem taalibe baay yi nga xam ne ñoo nekk si àddina bi rawatina euh, jamiyatu ansaaru diin di wax ne euh, bis bii nga xam ne mooy euh, bisu juddub yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci atu grégorien ñu ngi ciy sant yàlla di ndokkel suñ bopp di ndokkel mboolem taalibe Baay di wax ne euh, ñu ngi nuyu xalifa suñ sëriñ suñ xalifa Maulana Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass di di ko nuyu di nuyu imaam imaamul akbar Cheikh Tidiane Ali Cissé di di ci teg euh, suñ sëriñ suñ représentant xalifa bi fii ci Dakar Cheikh. Maulana Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ñu ngi koy nuyu di ko di ko ziare bu baax a baax a baax di nuyu euh, président national jamiyatu ansaaru din euh, Cheikh Mouhamadul Munhamina Ibrahima Niass ñu ngi koy nuyu di ko wax marhaban di ànd moom ci liggéey bi nga xam ne moom lañ nekk di ko ñaanal yàlla yal yàlla oyofal. yan bi di ko ñaanal yàlla yal na yàlla mottali mission bi nga xam ne moom la ko xalifa bi dénk ci jameetu ansaaru diin naam mu ngi ciy def waru garam mais yal na yàlla dëgëral ko gën koo kàttanal ba mu réussir mission am buñ buñ ko tatagalee ba pare ñu ngi nuyu mbooleem taalibi Baay yi di sant yàlla sant yàlla ci bi mu ñu jagleelee ñun waa Dakar ñun coordination Jamiyatu Ansaaruddin dakaar ñuy organiser bàyyi jox ñu ndigal ñuy organiser gàmmu fii ci dakaar nga xam ne gàmmu ren gi nag muy lu special ci jamono bi nga xam ne moom la mbas mi wàccee ci àddina bi ci lañ wax ne dinañ organiser gàmm gi organiser ko en ligne ba nga xam ne dara taxawut comme ni ko sëriñ bi waxee euh, lu nekk ak jamonoom jamono lum ñëw rek nga ànd ak moom ci loolu technologie ak euh, xaralay àddina bi permettre nañu ñu gàmm ci façon bi nga xam ne noonu la jamono tëddee moo tax tey jii ñuy jàllale suñ message di nuyu mboolem taalibe Baay yi di nuyu ñi nga xam ne nii ñoom lañ bokkal organisation bi muy mbooleem groupement yi nga xam ne groupement Jamiyatu Ansaaru Diin lañ yu yu région de dakaar muy quatre groupement yi di groupement wu Dakar di groupement wu Rufisque di groupement Géejawaay ak groupement pikin ñu nuyu mboolem président yi di leen jaay jëfal ci jàppale bi nga xam ne ñu ñu ko doon jàppale si organisation guddi gi nga xam ne moom la ñuy màggalee juddu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gannaaw buñ nuyoo ak jaay jëfal président yi nga xam ne ñoo jiite groupement yi ñu ngi rendre hommage aussi suñ prédécesseurs yi nga xam ne ñoo jiite woon ansaaru diin daan ànd ak ñun di organiser lii cette façon bii ñu koy organiser sax terewut ñoom ànd nañ ceeg ñun réunion yi ñu def yëpp ñoo ñun ñoo ko bokk di ko di tata di nuyu tamit di jaay jëfal waa bureau national ndax waa bureau national ku mel ni euh, secretaire général bi muy tonton Ousmane Thiam ak euh, Cheikh Tidiane Gaye ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ñëpp surtout techniciens yi technicien wu communication ak technicien informatique informatique yi ñëpp jàpp nañ si organisation bii nga xam ne moom la ñuy moom lañ organiser nii muy màggal junnu juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gën koo xam si gàmmu gàmmu de Dakar gàmmu international de Dakar online kon ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent yàlla Muhammad di wax ne ñu ngi tuub di jëggalu yàlla jéggal ñu ba yërmande yonent yàlla muhammad ci weer wi nga xam ne moom la gane woon àdduna yërmandeem wàcc ci mboolem xeet wi ba ba teggil ñu balaa bi nga xam ne moo ñu teree gàmm gàmm gi comme nañ ko daan defee ñu ngi ñu ñu ngi koy ñu ngi si ñaan yàlla di ñaan yàlla mu nangul ñu suñ tuub di ñaan yàlla gannaaw bu ñu teggalee natt bi mu baawaanal ay xéewal ci mboolem xaalamul islaam ci mboolem taalibi Baay yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñaan xalifa bi xalifa Cheikh Ahmad Tidiane yal na yàlla yàggal ko fi may ko wér ak mboolem rakkam yi ñu ngi gërëm ci jàppale bii nga xam ne moom lañu sëriñ si jàppale muy nangul ñu ñoom ñëpp nangul ñu ñu def gàmmu gi online euh, ñi nga xam ne jàppale nañ ñu mooy euh, oustaz Babacar Niang oustaz Babacar Niang moom mi nga xam ne conférencier la ci ci journée bi di di jaay jëfal euh, Cheikh May Ali Cissé di jërëjëfal euh, ki nga xam ne moo topp si xalifa bi tey muy Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass ñu ngi koy jaay jë jëfal euh, duñ wax mukk te taxawuñ ci ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Makki ibrahim Niass mi nga xam ne moom moo daan fanaan ak ñun ci guddi gi mais biñ ne gàmm online tamit tere wut moom dafa ñëw def li nga xam ne moom la war a def si gàmm online gi duñ fàtte zakirul pays bi muy Cheikh Ibrahima Ndaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaay jëfal wante mention spéciale à Cheikh Mouhamadul mun Munhamina mi nga xam ne mooy président national jamiyatu Ansaarud-Din kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di wax ne euh, techniciens yi amuñ seen fay ñu ngi leen di ñaan di sàkku ci sëriñ si ñu ñaanal leen yàlla yàlla yokk seen xam-xam gën leen a dëgëral wante ñu ngi ñaanal suñ mbooleem sëriñ si di leen ñaanal yàlla may leen wér yàggal ci suñ kanam barkeel seen xam-xam ndax lii biñ leen ko waxee rek lañ lañ ko fuglu ñoom ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah